xam ne ñun euh, ci Sénégal tey dañu représenter toute l'étendue du territoire national ci 14 régions yi ak 45 départementales mais li ñu gis fii tey bariwul lu ñu koy gis bi ñu dalee wax ay lakk ba tey muy loo xam ne du mën a wax ne seen premier parce que amul benn région tey bu amul bu li laalul ñu yàgg cee ñu yàgg cee wax nag bu baax xëy na tey Touba dafa. dafa aye te mën naa ne du premier ay lakk amoon na Touba mais bii nag moom mooy lakk bi nga xam ne mën nañ ne li mu li mu demee mësul am ñun bañ dalee seede ay lakk ba tey muy lu metti trop loo xam ne euh, ñëwul ci heure parce que ren ku ne xam na li Sénégal yi daj ci Covid bi yi amatuñ dara am na moment yoo xam ne dañuy tëj seen i marché duñ jaay euh, ci lu bëree bare bare bare ñu di ko gérer. ba ñu yaakaar na couvert bi jeex na yàlla andi li tey lakk yi nag comme ni ñu koy waxee rek toujours ñu responsabilité bi mënuñu ko citer fenn mais biñ ñëwee ñu laaj dañu wax ne benn poto moo tàkk fii biig moo indi dégâts bi ci liñ ñu wax en général bu lakk amee ñun dañuy bàyyi ba enquête bi pare ñu wax lan moo ko lakk mais bii ouvertement dañu wax ne poto bi moo ko taal muy loo xam ne mett na trop ñuy masawu mboolem koo xam ne am na fi place. matuwaay yi ñuy jël mooy euh, yàgg nañ ko wax. parce que il faut que marché yi le président de la république ci boppam yàgg nañ ko wax ne ko marché il faut mu sàkk ci pexe ñi ngi ñi ngi ñi ngi woo ministre de commerce bi nga xam ne tey képp kuy jaay jënd moom mooy sa ministre de tutelle parce que li am nii tey mbiru du mbiru maire mënu ko régler kon moo tax ñuy woo le président moom ci boppam moo xam ne Touba lii fi am métti na métti goo xam ne il faut mu yónnee fii ay ndaw enquête xool fan la dégâts bi toll mu xool nu mu leen di jàppalee. te bu loolu passé ñu wax leen ne toujours marché yi buñ ko privatisé bàyyi ko mu nekk énergie lu waay neex def lii du fi jóg mukk ci àddina wax nañ leen toujours ne marché dem responsable waaye marché boo xam ne ba une heure de matin bi muy tàkk ay nit a ngi ci biir si bien que ñoom wax nañ ne taaluñu kopp benn poto ko taal mais bu bu ko poto taalee tey bu subaa ñoom ñu taal ko parce que marché bi lépp nga ci biir ay gaz nga ci biir ñuy def dibee nga ci biir lépp nga ci biir loolu marché day am organisation en tout cas ñun Unacois Yeesal mi ngi. massawu coono mboolem ñi nga xam ne am particulièrement euh, bay moor Ndiaye bay Mor Ndiaye euh, ku ne xam na membre fondateur la ci UNACOIS di opérateur économique hors pair boo xam ne Sénégal yëpp xam nañ ko tey centre commerçant bi nga xam ne moom mooy bi gën a mag kii dëkk bi moom moo ko moom. li ci nekkoon ci bagage te mu moom ko kenn xamul nu mu toll muy nit ku baax koo xam ne kii ku gëm yàlla la mu ngi nii sama wet euh, ñi ngi ñaan le président de la république mu def gëstu ci lii fi am. lépp loo xam ne man na leen ko jàppale mu jàppale leen ko parce que lii euh, ñun euh, toujours dañuy wax affaire sociale bu da mel ni amee tous les opérateurs économiques ñu def effort pour dimbale ko mais lii dafa ëpp suñu loxo nekk na mbir ma foog état ci metti na metti goo xam ne état mënu ci ñàkk dugg loolu daal la ñu amoon ci loo xam ne dañ koy wax di ma saw nag képp koo xam ne sa bagage nekkoon fi te mu lakk ñi ngi leen di ñi ngi ñi ngi lancé appel encore comme ni ñu ko doon waxee wax ne marché yi nañ ko privatiser néew na trop boo demee ci dëkk yi nga xam ne ay dëkk yoo xam ne dañu organiser nga gis centre commerçant bu bu lakk ndaxte ña day fekk ne dafa am ko moom mais loo xam ne kenn moomu ko kenn nag génnal mu bañ koo jekk ba mu ne nga ne ko génnal mu ne moomoo ko loolu toujours lu mel ni day am général il faut ñu góorgóorlu euh, marché yi jox ko privé yi ñu gérer ko ñii nga xam ne ñoo fi nekk nag di ay xale yoo xam ne dañuy góorgóorlu. def seen yaakaar ci lii di di daanoo ko jóg nga xam ne tey gis nga phénomène bi am muy ñi nga xam ne dañuy dem ci gaal yi xam ne Sénégal daanaka entre Magal ak léegi li fi génn ci réew mi kenn xamul nu toll su lu mel ni amee nga xam ne xale yi ñoom ci seen bopp fii lañ doon toog di suturluwu su ci état bi taxawul dimbale leen duñu mën a toog di xool wala duñu lekk suuf il faut ñu liggéey loolu dañuy ñaan état bi mu jàppale leen encore une fois yónnee fi ndaw. def recensement xool lan moo nekk dégâts lu mu ci man mu dimbali ko loolu maa ngi entreprenariat directement le président de la République Macky Sall